ma xëy na monsieur le coordonnateur ma am style boo xam ne président Macky Sall ci boppam lay waxam ndax jàpp naa ne ci taabal bi yëpp xëy na maa ko ci gën a xam ndax gën a yàgg ak moom monsieur le président ñun dey ba nuy ànd ak yow gëmuñu woon ne fii la ñuy mujjee ak musuñu ko imaginer ndax maître Moussa Diop mii toog ba ci Cheikh Tidiane ba ci yow mii coordonnateur 2011 ñoo àndoon ne ca place de l'obélisque sa soxna di fa maye sandwich di fa joxe ndox bind t-shirt non au troisième mandat sol ko mu ngi ci internet jour boobu ci lañu ñu boom Mamadou yal na yàlla xaare ko àjjana ah ñu ànd ak yow ba fii ñu jàppoon nag ne wax dëgg yàlla mënuñu woon a imagine ne fii la mbir mi di teere monsieur le président l'heure et très grave nañ ne l'heure est grave mais elle est très grave monsieur le président bul topp wax naa la ko keroog ñii di la pousse ci lii nga dugg nii amul issue c'est une voie sans issue wax nañu ko Sénégal ñuy def la une de toute la presse internationale am ay mbokk yu ne Japon ancien collègue ñu naan lu xew ñu nekk Amérique latine ci dëkk boo xam ne on la l'appelait l'exception africaine l'exception africaine ba ci niñ daan traiter les journalistes nga ne woon yow ci sax ay kenn du fi arrêté journaliste tey Sénégal on fait partie de dëkk yi nga xam ne moo ëpp journaliste yu ñu arrêté kon monsieur le président de la république nii nga jàmbaarloo ak say xale dégg naa nga ne vous savez vous battre parce que toujours dañ lay vous voyez ñun de jiwuñ la loo loo xeexeek suñuy ndaw jiwuñ la jiwuñ la it loo xeexeek ñun 16 morts 16 monsieur le président defaraatal sa toogaay defaraatal sa toogaay fii ay terroriste ñu fi man duma terroriste maak yow àndoon xam nga ma duma terroriste fii benn terroriste amul ci F24 ça n'existe pas li am kay mooy une jeunesse consciente et qui refuse aussi lii nga ko bëgg a teg jëlal lii yëpp nga teg ko ci suuf parce que li intéressé sénégalais yi intéressé aussi yaay yi ñu doon ba ci maam yi mooy jàmm dellu si yoonu jàmm mu ngi ci sa loxo mooy d'abord nga teg affaire procès bi nga xam ne ñëpp jàpp nañ ne du procès ndax koo toppee viol topp ko euh, menace de mort ñu ne la loolu amul la ko la waroon mooy nga ba ko mu ñibbi jëlal say juge comme xam nga ni ngay waxtaanee ak ñoom nga jël solution teg lii yëpp ci suuf mu jeex xam nga ni nga koy defee. ñaareel ba nga jël kàddu ne troisième mandat bi kat xëy na mu ngi woon sama xel kooku sax mën nga koo bañ a wax ndax kilifa nga waaye teg naa ko ci suuf bu ko defee suñu doom yii ne ci biir kaso bi ñu bàyyi leen école a ngi waaj jeex foog ñu def yi bac foog ñu def yi brevet foog ñu terminer seen seen i examen à l'université ñii war a dellu ci atelier yi ñii yor seen commerce ba ci ñi yor boutique mbagg ne ci biti mën a dellu ci seen activité waaye nag sunu fukki xale yeeg juróom-benn yi nga xam ne seen bakkan rot na ci kooku moom kenn mënu koo faase waaye nag premier pas pas yii ñu la wax boo ko defee jàmm dellu si waat kon képp koo xam ne yaa ngi dugal sa loxo wala sa xalaat wala sa xel ci voie de solution voie de solution yaa ngoo teg procès bii ci suuf xam nga artifice yi ngay jaar juridiquement pour ñu jàll ci leneen. ku ne doon candidat Ousmane Sonko doon candidat Mimi Touré doon candidat ku ne doon candidat Khalifa Ababacar Sall ku ne doon candidat yow nga wut sa candidat yow ma mën a bokk loolu la dogal ndax nag dañ laa fal falaat la ñun président dañoo wàccoog yow dañ laa defal teraanga bu ne ndax 2011 nag du njëkkoo woon ci opposition waaye sénégalais yi fal la 2019 ñu ànd ak ak yow ñun ñii ñu ànd ak yow ñu falaat la ci diggante bi 2016 nga ne nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs wër ko wax ko fu ne moo tax keroog la nga wax ñu ci bëri comprendre ñu ko. am nañu comprendre li Moussa wax ne danga ne ñun ñi àndoon ak yow xamoon nañ ne buñ la nee wii dangay am troisième mandat loolu de mosuñu koo xalaat waaye man la ma jàpp mooy. da nga ne opposition ba nga xam ne ñoo doon wax ne boo amee wii da ngay def troisième mandat donc wax ci sax daanaka kenn comprendre ko waaye la ci yomb te ñëpp jàpp ko mooy nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs mooy chaque situation donc monsieur le président l'heure est très grave il faut sauver le peu qu'il reste à sauver ci li nga xam ne moo la dese pour les huit mois à venir xale yi nga xam ne perte nañ ci seen bakkan kooku duñu ko baal kenn ndax nag neuf mois la ñu leen ëmboon jur leen ñi ñun ñii ñëpp ne woon naa duma ci wax parce que vie privée la waaye dañuy interpeller madame la première daam dame lañu wax une dame c'est une femme madame la première daam vous êtes une mère lii suñu xale yi di di di di daj wax ci ak monsieur le président de la république ñu arrêté lii ñuy gis ñoo xam ne kenn xamul lu ñu doon kenn xamul policier lañ kenn xamul lu ñu doon gis nañ leen vidéo yi nekk ci ñëpp di ko témoigner loolu mu dakk immédiatement ña nga xam ne def nañ ñaawteef yooyu ñuy ut ñu dinañ leen topp ci yoon buñ leen topp Sénégal yi topp leen feneen muy yi muy ci yeneen dëkk yi nga xam ne dañu am le principe de la juridiction universelle ci yenn crimes yi y a pas que la CPI aussi il faut ñu xam loolu juristes yi xam nañu ko mais ci diggante bi madame la première dame en tant que maire ñun ñëpp ñun ay jigéen ñi fi yor ay doom dañoo sukk jur xale yi ñu rey téyel loxo président de la république ne ko mu arrêté lii nga xam ne mësuta am Sénégal ba Sénégal di Sénégal ñoo toll à un niveau aussi bas de démocratie mësula am waxal moom personnage privé nga ne woon ma du ci wax waaye nag leur est tellement grave que yow ci sa bopp mi nga xam ne vous êtes une mère on a appelé toutes les mères à venir manifester toutes les femmes toutes les grand-mères toutes les jeunes filles borom kër yi ñëw parce que ku sa soxna génn xanaa doo doo ko bàyyi mu dem moom kenn xale yi ñëw ku sa yaay génn xanaa doo ko bàyyi mu génn moom kenn waaye madame la première dame da nga am une responsabilité première tuddee wuñ la première dame pour rien de c'est pour que aussi nga jox les conseils président de la république nga yegg nga téye loxoom moom li ko war du xeex ak ñun je sais me battre laa dégg mu wax keroo non non non no non waroo xeex sa peuple monsieur le président de la république waxoon naa ko amul benn président au monde boo xam ne am na armée wala police wala gendarmerie bu mën a dox digganteem ak askanam loolu du sa cër vous battre avec nous du sa cër mën nga nag ci politiciens yi nga seet nooy def waaye sa battre avec votre peuple tel qu'on l'a vu depuis trois jours loolu du sa cër monsieur le président de la république encore une fois tegal lii yëpp ci suuf tegal procès bii nga xam ne kenn ci Sénégal nanguwul ne procès bu jaar yoon la ñaari chef d'accusation ñu dàq ñaari chef d'accusation borom dafa war a ñibbi bàyyi candidat yëpp bokk nga libéré suñu xale yi ci mbedd mi ñu def enquête seet ñi nga xam ne ñoom ñooy les fameux nervis parce que nag on a des indices aussi danañ leen topp ba xam ñan lañu ba ñoomit ñu mën a répondre devant la loi mooy dëgg te ta ñun ñii F24 aussi yi ngay sonal salle bu ñu mën a réunion yi sax mënuñ ko am ñu ne dañuy dialogue waaw dem ci lieu privé privé parce que amuñu am lieu public nga yónni gendarme yi pour ñu génne ñëpp sànni leen monsieur le président bu fekkoon ne noonu lañ def ab président Ablaye Wade defoon 2011 kon doo yegg si fii kon doo yegg si fii dañu la woo commissariat central ci blanchiment ba ñu gisulee dara dañ la bàyyi nga dem noonu nga waroon a doxalee Ousmane Sonko opposant nga woon moom opposant la ku ne nekk candidat ni ma ko waxee ñi bëgg a nekk candidat yëpp nekk candidat 2011 y avait 12 candidats yow la yàlla fal jaarale ko ci sénégalais kon li nga xam ne mooy sa cër te vraiment ñun de musuñoo xalaat ne dañ yegg si fii ak yow musuñu koo xalaat su ma diggante ak yow nag lu ne xaj na ci waaye man ak yow woon waaye sa diggante ak les sénégalais la jeunesse sénégalaise tout particulièrement bi nga xam ne 2011 ñoo la fal suñu meeting 2011 yi y'avait pas des jeunes de plus de 30 ans kooku maa ci teg su ma bët ñoo la faloon mënoo ñëw 10 ans après ne dangay ngay xeex ak ñoom munoo ñëw 10 ans après ñu feesal les prisons de jeunes munoo ñëw 10 ans après la nga doon xeex contre le président Ablaye Wade muy troisième mandat nga ne da nga koy indiwaat monsieur le président l'heure est grave